والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة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 wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uxdatan min lisaani yafqahu xawli subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alimul xakim saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wa zid baraa'i wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaare di leen baalu xaq di leen baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla boole di ñaan borom bi yàlla na saxal sunu xol yi imaanu billahi di ko ñaan mu ñuy xirtal ci ñu koy jaamu te lépp luñ ko jaamu rekk mu nangu ko di leen ziyaare bu baax ci seen télévision mafatixul bichri tv waaye di leen ziyaare ci émission wi nga xam ne mooy njàngalem cheikhul xadim di émission woo xam ne dañ ko jagleel téere xam-xam yi te jamono yi ñu toll ci téere bu ñuy wax mawaaxibul quddus di téere woo xam ne ku tedd ki cheikhuna cheikhul xadim moo ko def muy téere tawxid buy jàngale gëm yàlla ak wéetal ko ñu toll woon ci bunt bi nga xamante ne mooy faslun fil bara'in muy buntu buy leeral lay yi muy yooye nga xamante ne mooy ñaar fukki melo yooyu benn melo bu ne da koy layal ngir wane ne loolee mi ngi ci yàlla bu dee wujud dégg nga li mu ci wax xidam baqa muxaalifa wuute gi mu wuuteeg mbindeef yi ñu war a nag dugg ci xiyaamulaahi bi nafsihi mooy yàlla doylu gi mu boppam incha allah kon tey bunt boobu lañ war a fas yéene waxtaane ak mbokk yi incha allahu rabbi mun na sama topp xiyaamullaahi taxaw bi taxaw taxaw bi yàlla taxaw xiyaamullaahi muy taxawaayu yàlla jàlla kay aji màgg wa ala tey aji kawa bi nafsihi ci boppam burhaanuhu ak layam xadin jalaa feeñ na law annahu bu fekkoon ne moom yàlla xat kaana daa nekk muxtaajan di aajowoo ila cheyin jëm ci dara minal mahali ci jëmm jalla màgg na wa alaata kawe la kaana day nekk jalla aji màgg ji siffatan di ab melo kon wala yakun déet muy nekk moom borom bi zaata tisaafi di boroom ak melawoo bil maani ci maani yi ngir tabin bir na wala bi maanawiyatin du caagi sax maanawiya yi wataani te ñaar yi muy maani ak maanawiya lëhoo ñeel na yàlla kon daal fa sa zu shahni déet bërëm ak mbir yi sifatan di aw melo kon yàlla du melo wa annahu naka moom law kaana bu nekkoon tamit muhtaajan di aajowoo ilaa muhassisin jëm ci aji amal la kaana kon day nekk xaadisan di aju sosu jàlla màgg na te kayfa naka lay mën a nekkee waqat sabata te saxoon na burhaanun ak layam ala xiddamihi ci ak jiitoom baqaa'ihi ak desam fiima ca la nga xamante ne xalla wéy na day wane ne sunu boroom subhanahu wa taala xiyaam bi nafsi daa nekk ci moom mooy doylu boppam doylu ba soxlawul kenn dara soxlawul lenn ci dara waaye ñépp soxlawoo jëm ci moom kon xiyaam bi nafsihi daa nekk ci borom bi léegi nag muy leeral su fekkoon ne xiyaam bi nafsihi nekkul ci moom kon yàlla day doon ab melo loo xamante ne jëmm la joo xamante ne dañ koy mën a misaal dañ koy mën a ah, melal kon yàlla day aajowoo koo xamante ne moo koy bind te buñ ko bindee rek kon day mel ni moom dañ koo sos te yowoon waxoon nga ne yàlla mooy ki nga xamante ne mooy bind waaye moom kenn bind ko kon loolu rek mooy firndeel ne yàlla xiyaam bi yi daa nekk ci moom te lool sax la koy gën a firndeel bu fekkoon ne yàlla xiyaam bi nafsihi nekkul ci moom kon dañ koy bind te képp ku ñu bind am na fooy tàmbalee am na fooy yem te mbind mi ci ginnaaw jàngoon nga ne yàlla xadiim daa nekk ci moom mooy jiitu goo xamante ne amul fu mu tàmbalee waxoon nga ne yàlla baqaa daa nekk ci moom mooy yem goo xamante ne amul fu muy taxaw comme que yow saxal nga ne yàlla xadiim mi ngi ci moom saxal nga ne yàlla baqaa mi ngi ci moom kon loolu mooy firndeel ne yàlla kon xiyaamu bi nafsihi ku doyloog boppam la soxlawul kenn dara wujubu waxdaaniya war gi nga xamante ne yàlla dafa doon kenn wujubu waruk waxdaaniyati kennuk allatif aji ñeewante ji burhaanuhu ak layam almaxki baji bañu nettali ani ko ci sharif ba muy imam sanusi law annahu bu fekkoon na moom yàlla lam yakku nekkul waaxidan di kenn laazim day war min sama foofe kawnu kullu waaxidin nekkub lépp lenn adam di ñàkk li ajzihi ak lottem ngir ak lottam na idin ci boobu jamono wujuba ci lu war mina tama noy ci teramte ga fakkun na nga nekk adiba du ko am teggin bu fekkoon ne yàlla nekkul woon kenn nga ne yàlla ñaari yàlla fi ne wala ñett yàlla wala ñeent kon dara du am dara doo fi gis loolee mu sotti la koy waral mooy su benn yàlla gi waxee nàngam beneen yàlla bi day wax nàngam te loolee lu neex a lu neex a gëm la ne yàlla moom kenn la ngir àdduna bi nu mu organisé wu kenn ku ne rek da koy xool rek ci dëkk bu mu ne bu fekkoon dëkk boobu dafa am ñaari président wala ñetti président wala ñeenti président ñu nekk ci dëkk bi kenn ku ne di am lu muy dogal kii su waxee lii kële day wax lee kii bu waxee lee kële wax kon ñoom du ñu mën a defal dara ndax kenn ku ne day xëcc ci boppam lii wane na nag mbir mi mi ngi dox mooy kenn gi nga xamante ne moo fi ne kon lii wane na àddina amul ne ñaari yàlla moo fi ne su fi ñaari yàlla nekkoon jant bi suy génn fii ci penku bi keneen ko day wax ne soowu lay génn wala buy génn soowu keneen ko ne penku lay génn wala keneen ko ne ndajoor lay génn wala keneen ko ne càmmuñ lay génn wala sax am ko wax ne tey jii jant bi du génn yooyu yëpp nag xëcconte googee mooy tax kon dara du mën a sotti kon loolu day firndeel ne yàlla kenn la lii waral na yàlla kenn la mooy su amoon ay yàlla yu bari dara du am summa topp tisaafuhu ak melowoom bi ilmin ci xam mooy xam-xam ci xam wa xayaat ak dund wa qudratin ak kàttan iradatin nameel min zi sifaat tukkee ci yooye melo burhaanuhu ak layam law intafa bu dàqoon shay'un dara lama wujida kenn du fekk shay'un dara min wara rabbi sama ci mbindeefi boroomu asamaan bu fekkoon ne yàlla xel mu nekkul ci moom muy xam-xam bu fekkoon na yàlla xayaat ak dund nekkul ci moom yàlla qudra nekkul ci moom muy kattan iraada nekkul ci moom muy nammeel ñeenti melo yi bu nekkul woon ci yàlla kon doo gis mbindeef am kon dara du am li tax mu mën a am parce que yàlla am na xam-xam ba te moom mi amal mi ngi dund te am na nammeel ba te dogal na ko yii ñeenti mooy tax dara am bu fekkoon ne yàlla amul xam yàlla dundut yàlla amul kàttan yàlla amul nammeel kon doo gis dara di am kon soo gisee dara am kon loolu day firndeel ne xam mi ngi ci borom bi xayaat mi ngi ci moom qudra muy kàttan mi ngi ci moom iraada mi ngi ci moom wujubu samhin warug dégg basar gis kalaam wax burhaanuhu ak layam arbaatul axsaam ñeenti xaaj la bi ci njëkk mooy kitaabuhu téere bi muy alquran lii firndeel ne sunu borom day dégg yàlla day gis yàlla day wax dinañ ko xaaj ci ñeenti xaaj bi ci njëkk mooy téere borom bi muy alquranul karim yàlla wax nañu ko ci lu bari inna allaha samiun basir yàlla kuy dégg la kuy gis la inna allaha ala kulli cheyin qadir muy qudra googu yàlla ku am kattan la inna allaha bi kulli cheyin alim yàlla mbir muusi gis rek am na ci xam-xam kon ilmu googu mi ngi ci moom kon yii day firndeel ne yàlla alquran wax nañu ne yooyu melokaan yi wax ne mi ngi ci yàlla alquran saxal na ko waaye bu ñu indee ñett yi muy sam'un basar kalaam muy dégg gis ak wax alxuraan saxal na ko inna allaha samiun basir yàlla kuy dégg la kuy gis la te yàlla wax ak nag yoon ci yàlla Muusa wa kalaamullaahi Muusa taklima wa kalaamullaahi Muusa yàlla wax ak waxante nag ki nga xamante ne mooy yoon ci yàlla Muusa kon wax na kon kalaamullaahi mi ngi ci mi ngi ci yàlla samiyaax dégg mi ngi ci yàlla basiir gis mi ngi ci borom bi kon loolu alxuraan saxal na ko muy benn wa sunnatul muxtaar ak sunnas ki nga xamante ne moom lañu tànn salla yàlla dollu xéewal wa sallama te dollu koo musal alay ci moom albaari aji bind ji mbindee fi sunna muy xadis saxal na yu bari ne yàlla kuy dégg la yàlla kuy gis la yàlla kuy wax la saalisuhaa ñetteel ga al ijma mooy dajeeg boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi eh, saxal nañ tamit lool ne yàlla kuy dégg la kuy gis la kuy wax la wa raabix ñeenteel gi maa mooy la nga xamante ne qaala wax na ko asanuusi imaamu sanuus imaamul ulama kay imaamu boroom xam-xam yi imam sanuus daa wax ne law lam yakun bu nekkul woon mu mutasifan di melowoo bihaa ci yooyu melo lazim day war kaw nu tisaafi nekkuk ak melowoom bi daadin ci ay safaan yooyee ngulim nga xamees na ko te waxi yoo loolee naqaais ay wàññeeku la te wa naxsun ak wàññeeku xasalaa gu am ala ilaahina ci sunu yàlla loolee mu xaalul lu jomb la mus jëlaa mboole seen imaam Sango li mu wax dafa leer bu fekkoon ne yàlla melowul yooyu melo muy samun bu fekkee ne samun nekkul ci yàlla basar gis nekkul ci yàlla kalaam wax nekkul ci yàlla kon yooyu safaan kon moo nekk ci moom ndax soo gisul rek da ngay gumba soo déggul dangay tëx soo waxul da lu kon bu fekkee ne na yàlla gisul kon da ngay wax ne yàlla daa gumba bu fekkee ne yàlla waxut kon da wax na yàlla daa lu fekkee ne yàlla déggut kon da ngay wax ne yàlla daa daa tëx te safaan yooyu yow jàngoon nga ne daa jomb ci yàlla comme que lu jomb la lu jomb kon mënul nekk kon li war kon kon yàlla samia basir kalim kuy wax la kon loolu leer na moom sanus kon loolu la wax dafa ne ñetti melo yooyu boo ko saxalul ci yàlla kon ay safaanam ngay saxal ci yàlla ndax danga nga naan lii rek baa lii soit da nga dégg na wala déggut gis na wala gisut mi ngi wax wala waxut bu fekkee ne da nga saxal nag moom mi ngi dégg alhamdulilah kon dàq dàq nga li nga xamante ne mooy gumba waaye boo nee yàlla gisul kon da ngay wax ne yàlla kon daa gumba te loolu wala yaasu billah daa jomm ci moom boo saxalee ne yàlla li nga xamante ne mooy ak dégg dafa ko kon da ngay wax ne daa daa jomm ci moom boo saxalee ne yàlla waxut day daalu te loolee daa jomb ci borom bi subhanahu wa taala kon daal ala kulli xaalin samu on ci moom basar mi ngi ci moom kalaam tamit mi ngi ci moom burhaanu kawni fi'li kulli mumkinaat layub layub jëfug bépp mbindeef wa tarkihi ak bàyyeem fi xaqihi ci xaqam min jaa'izaat bokk na ci yu dagan kon lu dagan mooy loo xamante ne yàlla mën na ko def mën na ko bañ a def mooy mbindeef mbindeef daa dagan jàngoon nga ko lu dagan nag mooy loo xamante ne mën naa am mën naa bañ a am loolu nag ak layam ak layam mooy law awjaba bu fekkoon yow danga waral wala bu fekkoon dafa waral al aqlu salim xel gu mucc aw aqaal wala mu jombal alay ci moom min haa loolu ay cheyin bépp mbir fil misaal ci misaal lakaana kon day nekk mumkinun mumkin mu xaalun di jomb te loolee yaasulu giseesu ko aw waajiban wala nga ne mumkin lu war la te wasaa ko loolee laysa yuqal kenn du ko xelu mante ne su fekkee dangaa wax ne mumkin muy mindeef nekkul jaayis kon ñaar ngay wax danaan kon mumkin daa war wala nga ne mumkin daa jomb boo nee daa jomb mooy lu mënta am te am na kon li nga wax mënta ne boo nee waajib mumkin daa war war moom mënta ne lu war mooy loo xamante ne ala kulli xaalin daa war a am te li war moom ci yàlla rek la nekk kon mumkin kon mënta nekk mustaqil manta nekk li nga xamante ni mooy waajib déedéet mumkin mooy mbindeef manta nekk lu jomb manta nekk lu war lu lu dagan rek la mën a nekk muy jaayis lu dagan nag day nangu ne mën naa am mën naa bañ a am comme ni ma ko leer loon ñaari nit mën nañu ànd muy góor ak jigéen yàlla dogal ci ñoom doom ndax dafa dagan ñaar mën nañoo ànd yàlla bañ dogal ci ñoom doom dafa dagan dogal gi muy dogal ci ñoom ñu am doom daa dagan ñàkk gi muy ñàkk timit dogal ci ñoom ñu bañ a am doom timit daa dagan ndax lu dagan day nangu ñaar moom la ñuy wax mumkinul mawjud walla nga ne mumkinul maqdum lu mën a am te am ak lu mën a am yàlla ñàkkal ko loolu mooy lu dagan insha allahu rabbi kon huna fii intaxa la jeexee addul baraqin limu layyi maa asharatan manquula ànd ak fukk fukki toqol amman jëlee ca ka nga xamante ne waqaa peeg na xam-xam kon fii lay jeexee li nga xamante ne mooy limu lay yi maanaam melokaan yooyu muy ñaar fukki melo yi melo bu ne leeral na la lan moo tax loolee war a nekk ci yàlla bu dee wujud li tax nga mën a gëm ne yàlla lu am la mooy qudusul aalam mooy sosug min maam sosug àdduna bi àdduna gi tëbul tëb rek sos boppam déedéet déedéet loolu mënta ne adduna am na ko ko sos kan moo ko sos mooy suñu borom subhanahu wa taala kon liy firndeel ne yàlla am na mooy àdduna gi sos gi mu sos boobu mooy benn bi mu leeral la li nga xamante ne mooy xiddam yàlla jiitu gi mu jiitu loolu la nga war koo gëm yàlla bu fekkoon ne moom yàlla jiituwu fi kon yàlla am na ku ko fi am na am na ku ko fi jiitu kon kookee moo sos yàlla te ku ñu sos rek mbindeef la kon da kon yàlla kon mbindeef la kon loolu ngay wax bu fekkee ne da wax ne yàlla nekkoo xadiim kon da wax ne yàlla am na ku ko sos te loole daa jomb ci moom yàlla moom mooy xadiim moo fi jiitu jiitu goo xamante ne amul fu muy tàmbalee baqaa comme que sax la nga ne yàlla moo fi jiitu jiitu goo xamante ne amul fu muy tàmbalee. kazalika noonee ngay saxale ne yàlla baqaa mu moo fi des des goo xamante ne amul fu muy yem loole boo ko saxalee loolu moo lay dugal ci ne yàlla kon daa wuuteeg mboolem lépp lu mu bind ndax képp ku mu bind am na fooy tàmbalee am na fooy yem loolu tamit moo lay jural ne yàlla tamit qiyaam bu nafsihi yàlla ku taxaw ci boppam la mooy soxlawul kenn dara waaye ñëpp soxla jëm ci moom loolu mu lay firndeel ne yàlla qudra mi ngi ci moom muy kattan iraada mi ngi ci moom muy nammeel ilmun mi ngi ci moom muy xam xayaat mi ngi ci moom muy dund loolu boo ko saxalee mooy ay ay maani da ngay saxal li nga xamante ne mooy seen maanaawiya boo ne qudra na qaadirun iraada na murid ilmun na aalimun xayaatun nga ne xayyun muy juróom-ñett yooyu nga saxal ne yàlla samoon mi ngi ci moom basar mi ngi ci moom kalaam mi ngi ci moom muy dégg gis wax mooy mooy almaani nga indi seen almaanawiya muy samiun basirun mutakallimun loolu yëpp boo ko boolee muy ñaar fukki melo yi nga xamante ne ñoo war ci yàlla ñaar fukki melo yooyu nag leeral na la benn bu ci ne lan mooy lay gi ngir nga mën a gëm ne yàlla kat loolee ñaar fukki melo yooyu mi ngi ci moom loolu la gën a waxaat ne faxawat làq na alifan bu njëkk ba nafsiya ci jëmmam minha ci moom muy wujud moom la ñuy wax sifatu nafsiya muy melo goo xamante ne ci jëmmi yàlla rek la ne boobee làq na benn mooy lan liy firndeel ne yàlla wujud mi ngi ci moom mooy sos gi mu sos àdduna bi loolu képp la wali zawaati salbi ñeel na juróom benn yi wali zawaati salbi ñeel na boroomit rikk yi waawun juróom benn dafa am ay melo yoo xamante ne moom la moom la ñuy woowee asalbiya muy xidam di baqa di muqaalif di qiyaam bi nafsi di waxdaaniya maanaam juróom yi moom la ñuy wax li nga xamante ne mooy ay melo yi nga xamante ne mooy day rëkki boo ko saxalul rek dangay wax ne yàlla loole nekkul ci moom bu fekkee ne nga ne yàlla nekkul waaxid nekkul kenn kon dangay wax ne yàlla ñaar la te loolu daa jomb te wax naa la sànq ñaari yàlla bu fi nekkee dara du jàppandi dara du baax kii dee xëcc fii kii xëcc fee boo waxee ne yàlla du xadiim kon da wax ne yàlla dañ koo sos te ku ñu sos moom mbindeef lay doon te yàlla moo bindee loolee mënta ne boo waxee ne yàlla baqaa nekkul ci moom kon am na fu muy yem kon ba léegi rek day yem li nga xamante ne mooy mbindeef yi boo ne yàlla muxaalifun yàlla wuutewul ak mbindeef kon da wax ne yàlla muy mbindeef yi ñoo yem loolu te loolu lay daa jom soo waxee ne yàlla indi nga xaddiim indi nga baqaa muxaalifa yàlla doylawul boppam kon loolu tamit moom mbindeef yi ñoo yem maam juróom melo yi moom la ñuy wax sifatu salbiya mooy melo yi nga xamante ne ñoom dañuy rëkki da ngay saxal rek sinon wala nga naay loolu moom su manul nekk te loolu moom ala kulli xaaleen day nekk yàlla qadiim la yàlla baqaa la yàlla muqaalif la qiyaam bi nafsihi yàlla waxdaaniya la léegi juróom benn yooyu nag ci xiyaam juróom yooyu ci xiyaam bi nafsihi moom da cee indi ñaari melo yuy gën a firndeel ni yàlla dafa nekk qiyaam bi nafsihi loolu mooy bu fekkoon ne yàlla muxtaajan dafa soxlawoo ila shay'in jëm ci dara minal maxaali ci jëmm lakkaana kon day nekk jalla aji màgg ji sifatan di aw melo bu fekkoon tamit law kaana dafa nekk muxtaajan di aajowoo ila muhassatin jëmee ci ku koy amal lakkaana kon day nekk xaadisan di ku ñuy sos loolu moo tax mu nekk juróom benn ndax juróom la waaye juróom yooyu ñu ñu ñu ñu illa ko moo tax mu ne ay illatuhu ak illaam ak torkiib bañ ba ñu toftale min juz'ayni ci ñaari xaaj yooyu xiyaam bi nafsihi ci xiyaam bi nafsihi duna mel ni julul nar da xiyaam bi nafsihi da koo da koo da koo da da koo tas ci ñaar mooy yàlla ku doylu ci boppam la léegi mu leeral la su fekkoon ne yàlla dafa aajowoo jëmm ju koy jëfal dara kon yàlla nekkul xiyaam bi nafsi yi su fekkoon ne yàlla tamit dafa aajowoo ku koy amal maam ku ko amal kon moom kon day doon koo xamante ne ku ñu sos lay doon te ku ñu sos kon doylawul ci boppam fekk moom tamit daal lottu ba am loo xamante ne mu mën a ko am koy defal tamit kon nekkul xiyaam bi nafsihi daa bëgg wax ne rek yàlla xiyaamu bi nafsihi daa doylook boppam kon juróom yooyu muy xiyaam bi nafsi baqa muqaalifun eh, xaddiim baqa muqaalifun xiyaam bi nafsi waxdaaniya muy juróom waaye la ko def juróom benn mooy xiyaam bi nafsi da koo xaaj ñaar muy juróom benn mu dem ba léegi wa juil defees na lil maani ñeel maani wal ak seen taqoo baa un muy ñaar min ajli mujibin ngir aji waral fiiha ca la nga xamante ne uxil xelees na xelut na ko gis ngir alzamu waral nañ ko fii dalilin waaxid ci benn tegtel xaa muy juróom-ñett min atiqi ci benn lekk la xam ne yalzam dana war aleyha ci moom wahiya mooy xudura iraada kaza naka noonu ilmun xayaatun wa lawaazim ak yi taqoog ñoom xuda jàppal lii ma la wax wa fi dal wa jamaa dajale na fii dalilin waaxid ci benn tegtal aydan ba tey baaqiyatan yi des minha ci ñoom al imam imam ba al mustabih kay ka ñu topp min itiqaadin ci benn la nga xamante ne laazim dana war ay dem ba tey zëre si lu feeñ waxiye mooy kalaamun summa samun wa basar summa topp li jaaisin ñeel na li dagan dalilin waaxid benn tegtal xad jaalaw def na def nañu nil naa yàlla nañu am bisa ci loolu almaqasida jubluwaay bi léegi sifatu nafsiya mooy wujud mu indi sifa yi nga xamante ne ñooy asalbiya muy juróom yooyu waaye ci xiyaame si da ko xaaj mu doon kon juróom benn kon am nga benn ak juróom benn muy juróom ñaar te waxoon ne loolu dina ko toxal ci fukki fukki toxal kon juróom ñaar mu des ñett ñaari yi mi nga xamante ne mooy maani yi ak seen maanaawiya muy qudra iraada ilmun xayaat nga indi ay maanaawiyam muy qaadirun muridun xayyun ak li nga xamante ne mooy eh, aalimun nga ñëw ci samaun basar kalaam indi seen maani muy samiun basirun mutakallim kon indi nga benn fale indi fii juróom benn indi fii ñaar muy juróom ñeent jaayis bi muy benn jaayis moom wax na rek lenn la mooy am mbindeef ak ñàkk am mbindeef muy fukk toxal yooyu nga xamante ne toxal la ko tënkaat la ko ci li nga xamante ne moom la doon la leeral nii jàpp naa ne leer na insha allahu rabbi kon xudra muy kattan iraada muy nameel ilmun muy xam xayaat muy dund muy ñeent yooyu soo innee seen maanaawiya ñeenti plus ñeent mu lay jox juróom-ñett mais loolu benn tegtal la nga ñëw ci beneen tegtal bi muy samun basar kalaam indi seen maani muy samiun basirun mutakallim muy ñaari tegtal mooy baa un yooyu nga xamante ne moom moom la waxoon mu ñaar mu ñaar tegtal yooyu nga indi jaayis ci benn tegtal jaayis moom wax na la mooy mooy bind mbindeef ak ñàkk bind mbindeef loolu kese la yàlla bu ko neexee bind bu ko neexee muy mu bañ bind bind gi ak ñàkk bind gi daa ci moom mooy fukki toxal yooyu nga xamante ne moom la indiwaat ci limu euh, baraayin yooyu moo tax waxaat ko fa xawat làq na alifan bu njëkk ba muy wujud ba wala nga ne fa xawat làq na alifan benn nafsiya muy bu njëkk ba muy ci jëmmam minha ci moom muy wujud benn la la am mooy xudusul aalam wali salbi ñeel na boroom ak yi muy juróomi melo yooyu muy qadiim baqa muqaalafa xiyaam bi nafsi ya moom ñeel leen waa un juróom benn da boo indee juróomi ci xiyaam bi nafsi yi da xaajaat mooy leen waa sànq yàlla bu nekkoon muxtaajan ila cheyin min al yàlla bu fekkoon dafa nekk di aajowoo jëm ci jëm kon day nekk koo xamante ne melo la te loolu daa jomm ci moom wala mu aajowoo jëm ci ko ko amal fekkoon yàlla dafa am ko koy amal kon yàlla day nekk xaadis day nekk ku sos te loolu tamit daa jomm ci moom moo tax mu ne xillatuhu ak illaam a tarkiib min juzayni qiyaamu bi nafsihi duuna may ni mu ñëw ci maani ak seen maana wa joel def nañu lil maani ñeel maani wal lawazim ak seeni taqoo mooy seen maana wiya baa un ñaar min ajli mujibin ngir aja waral fii haaja la nga xamante ne uqil xeles na ko ngir alzamo waral nañu fi dalilin waaxid ci benn tegtal xaa un juróom ñett min itiqaadi ma ci benn la nga xamante ne yalzamu war na alayha ci ñoom juróom-ñett yooyu mooy waxiya qudra mooy kattan iraada nammeel kaza naka noonu ilmun xam xayaat dund wala waazim ak seeni taqoo mooy seen maanaawiya xuza jàppal boo ne qudra na qaa na qaadirun na muridun boo ne na aalimun boo ne na xayyun muy juróom mu indi baneen wa fi dalilin waaxid ci benn tegtal aden ba tey jamaa dajala na baaqiyatan yi des minha ci ñoom al imam imam ba al muttaxbih kay aju topp min itiqaadin ci benn le goo xamante ne laazim day taqoo aden ba tey zahar feeñ wa mooy kalaamun wax summa samun topp dégg wa basar ak gis ak ay maanaawiyam ndax samun basar kalaam mooy maani boo indee seen ya muy samiun basirun mutakallim dégg mi ngi ci moom kon da saxal na yàlla aji dégg la wax mi ngi ci moom kon da ngay saxal na yàlla aji wax la gis mi ngi ci kon da ngay saxal ne yàlla aji gis la loolu nag boo ko boolee yëpp nag mooy ñaar fukki melo yi mu tëjee ko summa topp li jaaisin ñeel na li dagan dalilin waaxida benn tegtal benn tegtal bi mooy li dagan moom lenn rek la nangu li dagante mën a am wala li dagan ba noppi yàlla ñàkkal ko mooy mumkinul mawjud li mën a am yàlla amal ko wala mumkinul maadum li mën a am suñ boroom ñàkkal ko loole ci benn tegtal la ko def mu ne xat jaalu yàlla ñu def niil na wala xat jaalu def nañu niil na ñun ñi bisal maxasidi ci googale jubluwaay qad jaalu def nañu nil naa ñu am bisa ci loolee almaasidi jublu jubluwaay yi qad jaalu def nañu nil naa ñu am bisa ci loole almaqasid jubluwaay bi yàlla na ko suñu defal kon mi ngi noonu kon lay yaa ngoog muy lay yi nga xamante ne ñoo leeral ne yàlla moom melo yooyu daa war ci moom muy wujud muy benn wujud xadiim muy ñaar wujud mooy am gi daa war ci yàlla xadiim mooy jiitu gi gu amul fu mu tàmbulee daa war ci yàlla baqaa mooy des goo xamante ne amul fu mu yem daa war ci yàlla mu xaalif yàlla ku wuuteeg mbindeefim la muy ñeent xiyaam bi nafsi yàlla ku doyloo boppam la soolawul kenn dara wax daaniya muy kenn ku yàlla yàlla waaxit kenn la du ñaar muy juróom-benn nga ne qudra kattan mi ngi ci moom iraada nammeel mi ngi ci moom ilmun xam mi ngi ci moom xayaat dund mi ngi ci moom samun dégg mi ngi ci moom basar gis mi ci moom kalaam wax mi ngi ci moom loolu nag boo ko saxalee da wax ne yàlla qaadirun ku am kattan la muridun ku namm la aalimun aji xam la xayyun aji dund la samiun aji dégg la basirun aji gis la mutakallim aji wax la loolu boo ko boolee muy ñaar fukki melo yi nga xamante ne ñoo war ci borom bi faslun lii bunt bu lay leeral la fii li ci yonent yi alayhimu yàlla nekk ci ñoom assalaatu xéewal wasalaamu ak mucc fal ñoo ngi soppi alxawla waxja ila al axyaar jëmee ko ci tànneef yi baada tafasil ginnaaw ba ñu teqalee sifatil baari melo yàlla mi nga xamante ne mooy aji bind ji mbindeef yi ginnaaw bu ñu ci yàlla kon ñu ngi ñëw ci yonent bi génn nañ laa ilaha illallah léegi nag ñoo ngi dugg ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag soo duggee nag mbooleem li nga xamante ne mooy ay yonent dañuy tàbbi insha allahu rabbi maa ngi jégalu amma lazi ndaal la nga xamante ne yajibu dana war fi xaqi rusul ci xaqi yonent yi min asifaati ci ay melo fa salaasun ñett la yaa rajul yow ngóor si ni nga jàngee woon ne am na lu war ci yàlla ni nga jànge woon ne am na lu jomb ci yàlla ni nga jànge woon ne am na lu dagan ci yàlla noonee ngay jànge yi war ci ay yonent li jomb ci ñoom ak li dagan ci ñoom ñetti melo ñoo war ci ab yonent alayhimu yàlla nekk ci ñoom aska salaatillaahi gën nga asal xéewul yàlla maa salaamihi ànd ak musalam bila tanaa yi ci lu dul ndoytal wax naa lu war mooy loo xamante ne mënta ñàkk ala kulli xaalin day nekk ci moom lu jomb mooy loo xamante ne ala kulli xaalin du nekk ci ñoom lu lu dagan nag mooy loo xamante ne mën naa nekk ci ñoom loolu mooy lu dagan comme ni mu nekkee li war ci yàlla muy ñaar fukki melo yooyu muy wujud yàlla daa war a am yàlla daa war a jiitu yàlla dafay war a des yàlla daa war a dolli boppam yàlla daa war a wuuteeg yàlla daa war a am kàttan yàlla daa war daa war a am nameel yàlla daa war a gis yàlla daa war a dégg yàlla daa war a wax yooyu nga xamante ne war ci yàlla noonee la amee ay melo tamit yu war ci yonent yi bi su njëkk mooy sidqun muy dëggal amaanatun kóolute wa tabliixun ak jotal lima la nga xamante ne xat umiru digalees nañ ko digalees na leen ko min ay shay'in ci bépp mbir walima gu xamees na ko ñetti melokaan yi ñetti melo yi ñoo war ci ab yonent ab yonent sidqun dëggal daa war a nekk ci moom kon contraire dëggal mooy kadib wax lu dëgg daa jomm ci ab yonent ak yonent amaana daa war a nekk ci moom mooy kóolute kon contraire amaana mooy xiyaana muy ak war daa jomb ci moom ab yonent tabliix muy jotal yàlla bu ko waxee na ko jotale nangam da ko war a jotale kon contraire muy muy kitmaan nëbb daa jomb ci ab yonent kon noonee nga koy dégg kon sidqun muy dëggal amaana kóolute wa tabliixun ak jotal lima ci la nga xamante ne xad umiru digalees na leen min ay shay'in ci bépp mbir wulima gu xamees na ko ngir jotal ko dañ ko war a jotal kon ñett ñoo war ci ab yonent léegi ñett benn bu ne def la koy leeral mooy lan asidqu dëggal muy dëggu xadduhu ak firam la xobri fas si fóori yi iqbaaru shaabitin mooy xibaar guy sax bi nafsil amri ci dëgg dëgg jëmmi mbir mi loolu mooy dëggal ci misaal nga ne portable bi techno la ci waxin nga dégg ko te li ngay wax dëgg la portable bi techno la kon xibaar nga benn mbir te xibaar yi bañ ko vérifié gis nañ ne li nga wax dëgg la loolu mooy ko mooy xibaar mbir moo xamante ne bu sax la te ni mu nekkee noonee nga ko waxee kon ab yeneen loole day nekk ci moom muy asidqu xaddul amaana firuk amaana muy kóolute la daa fas si ka nga xam ne wala ña nga xam ne xaqaxaa dëggal nañu xifdul jawaarix mooy wattu mbooleem cër yi jamian mboole seen mutlaqan ba faw loolu mooy amaana buñ ne amaana daa nekk ci ab yonent loolu mooy leen mooy yonent bi mbooleem ay cëram manta def lu yàlla tere déedéet cëram yëpp nag xifzul jawaarix mbooleem ay cëram da koy wattu ci loo xamante ne sunu boroom da mooy amaana ci ab yonent moo tax ne xifzul jawaarix wattu ay cëram wattu ay cëram bët làmmiñ nopp loxo tànk biir mboolem juróom-ñaari cër yépp ci tënk da koy wattu min kulli fi alin ci bëpp jëf boo xamante ne xat naxaa tere na ko rabbu sama borom asamaan xat kaana wala mu nekk xat kaana mu nekk zakaraaha di lu ñu sib aw xaruma wala sax lu ñu xaraamal ab yonent du def lu yàlla tere ab yonent def yàlla xaraamal ak yonent def yàlla sib loolu mooy amaana ci moom xaqatu tabliix dëgg-dëgg jotal xul waxal wafaau mooy mu matale maa la nga xamante ne umira digalees nañ ko bi tabliix ngir mu jotal ko lil xalqi ñeel mbindéef yi ifhama déggal lii ma wax loolu mooy tabliix tabliix mooy ñu ne ko lii na ko jotal mbindéef yi mu ñëw jotal ko loolu booy tabliix kon ab yonent tabliix day nekk ci moom ab yonent mënta nëbb lu ko yàlla wax na ko waxal da koy wax donte day doon lu metti nit ñi sax foo jaar da koy wax ndax daa bokk ci charte yonent yi tabliix lu war la ci ñoom lu war nag mooy loo xamante ne moom mënta ñàkk wa yastaqim na nga jombale jiddu haadihi sifaat safaanu yile melo fi xaqihim ci seen xaq alayhim ci ñoom aska salaatin gën ngaa sell xewlu bi maa salaamin ànd ak muccam laa yarim gudul dog abada ba faw wa kulli man ak képp koo xamante ne qad jubeena bi radiyihim ci seen njub googee na nga jombale safaanu melokaan yooyu wax naa li war ci ñoom mooy sitqun amaana ak tabliix léegi yooyu nag seen safaan na ko jombale ci yàlla comme ni nga jàngee woon li war ci yàlla ay safaanam danga waxoon ne yàlla wujub kon safaanu wujub yàlla ku am la kon safaanuk am mooy ñàkk loolu daa jomb ci yàlla kazalika ni mu nekkee ci yonent yi nga saxal ne yàlla ñoom yonent yi sidqun mi ngi ci moom amaana mi ngi ci moom tabliix mi ci moom sidqun mooy dëggal amaani mooy kuulte tabliix mooy jotal ñett yooyu seeni safaan daa jomm ci ab yonent ay la ma ci nem kazimun muy fen wax lu dëgg daa jomm ci ab yonent ab yonent du wax lu dul dëgg mukk ci àddina xiyaana wërëj mooy war war mooy bi fi'li ma ci jëf loo xamante ne nuxiya tere na ko makruhan di lu ñu sib xul waxal aw maxruma wala lu ñu xaraamal loolu tamit daa jomm ci ab yonent muy xiyaana muy wor faalisuha ñetteel ga kitmaanu cheyin nëbb dara loolee bu nëbb loo xamante ne xad amar jigal na zul arshi boroomu arsh mu yàlla borom bi an yuballiquhu ngir mu jotal ko lil bashar ñeel mbindéef yi loolu mooy kitmaan kitmaan mooy yàlla na yonent bi lii boo demee nanga ko wax nit ñi mu ñëw nëbb ko loolee daa jomb ab yonent kitmaan muy nëbb dara daa jomb ci moom du ko def comme que lool ne nekk lan mooy dëggu leeral la lan mooy amaana leeral la lan mooy tabliix kazalika daf lay leeral lan mooy wax lu dëgg lan mooy xiyaana lan mooy kitmaan mu ne xaqiqatul kadib dëggi dëgg wax lu nu dëgg iqbaarun xibaar la bima boo xam ne lam yàkku nekkul saabitan bi sax la daa man fas si ña nga xamante ne alimaa xam nañu loolu may wax lu dëgg mooy nga wax loo xamante ne saqut amul fen ci misaal lii nii a ji jeter la man ma ne lii kurus la xam nga lii saxut ndax ku xool lii na xam ni lii du kurus waaye lii mouchoir à jeter la loolu mooy fen mooy wax lu dëgg mooy li nga wax saxul fenn boo xoolee kënnu ko gis loolu nag daa jomm ci ab yonent amal qiyaada ndaal war fa qadduha ak firéem hadamu xifzul jawaarix mooy ñàkk wattu ay cëram bi itlaaxin ci bayal naam waawaaw yow jàng nga amaana mooy téye téye sa mboolem cër contre amaana mooy xiyaana wor boo nee xiyaana daa nekk ci moom li muy firndeel mooy yonent yi ñoom seeni cër téyewuñu ko dañuy xool lu xaraam di gis lu xaraam di lekk lu xaraam def lu xaraam te loolee xiyaana la loolee ak wor la te loolee daa doon mustaqil ci ñoom daa jomb ci ñoom kon loolee mënta ne kon loole ku ko saxal ci ñoom rek wax na loo xamante ne lu mënta nekk la maam lu mënta nekk la ndax lu jomb mooy loo xamante ne lii mënul nekk loolu mustaqil la daa jomb ci ab yonent mu def xiyaana xiyaana nag mooy adam xifzul jawaarix mooy ñàkk wattu li nga xamante ne mooy ay cëram tarkul wafa bàyyi matale billadi ca la nga xamante ne xad umer digalees nan bi an yuballihu ngir ñu jotal ko jaraa daw na kitmaan di nëbb dëgg ñàkk matale li leen yónni ñu ne ko yow boo demee nanga wax lii moom mu ñëw waxul loolu kon nëbb na nëbb gi mu nëbb nag loolee daa jomb ci moom ab yonent du nëbb ab yonent day leeral li nga xamante ne moom la ko suñu borom wax ngir mu leeral ko kon yooyu mooy li nga xamante ne mooy jomb ci ab yonent ak li nga xamante ne moo war ci ab yonent li war ci ab yonent mooy sidqun amaana tabliix muy dëggal ak kóolute ak jotal li yàlla wax ngir ñu jotal ko mbindeef yi li jomb ci ab yonent mooy seeni contraire sidqun dëggal contraire mooy kazib wax lu dëgg daa jomb ci ab yonent amaana am kóolute contraire mooy xiyaana ak war daa jomm ci ab yonent tabliix jotal contraire mooy kitmaan nëbb daa jomm ci ab yonent kon incha allah loolu moo nekkoon bunt bi faslun li bunt bu lay leeral la fii bayna hazihi ci diggante melo yooyu minal xusuusi ci ay jagle wala umum ak ay matale ñetti melo yooyu dina am fu day leeral nag li tax ab yonent moom du wax lu dul dëgg ab yonent du war ab yonent du nëbb déedéet ndax dalaa wax ne yonent foo jaar day dëggu day matale li ko yàlla yónni ci nit ñi waaye tamit day am li nga xamante ne mooy kóolute léegi ñetti melo yooyu nag dina am foo xamante ne dañuy am ay xusuus mooy ay jagle ak foo xamante ne mën nañ faa am li nga xamante ne mooy amoom dina gën a leer am amma bayaanuhu ndaal ak leeralam fa an tanzura nañ ko xool min sabxati aw juuin ci juróom ñaari anam yi fa kulluhaa képp ci yooyu rëkin miinees nañ ko naqiisatan muy ak wàññeeku fi xaqi rusuli ci xaq yonent yi alkiraam ñooy way tedd alayhim nekk ci ñoom aska salaatin gën ngaa selli xéwal wasalaam ak mucc waxiya yooyu mooy an yubaddilu mooy mu wattee mbir amdan ci ak tayeef kaza naka noonu ziyaadatun dolli mbir amdan ci ak tayeef faraahi na nga al almaqaza jàppukaay ba mislu hawa misluhuma kem ñoom ñaar a tabdil wattee dara faxwan ci am njuumte sabata gu saxna wa hakaza naka noonu alkitmaanu nëbb dara am ci ak tayeef yaa fata yow cam si ziyaadatun ak dolli faxwan ci ak njuumte kaza naka noonu almuqaalafa ak wuute kitmaanum seenum nëbb saxawun ci ak njuumte bilaa muxaalafa ci lu wuute juróom-ñaari mbir lay wax ne moom lay traité ci foo xamante ne melo yooyu dañ ci am xusuus ak foo xamante ne dañ ci am xamoom muy yubaddilu amdan muy wattee dara ci ak tey ci misaal yàlla na la na nga wax nangam yonent bi ñëw wax leneen lu ko yàlla waxul te moo ko tey daf lay leeral su fekkoon loolu daa nekk ci yàlla yenn melo safurlaa su fekkoon loolu daa nekk ci ab yonent yenn melo ñoo koy dàq dana ko indi ziyaadatun amd dolli dara ci ak tayeef yàlla na la waxal nàngam nga ne waaw dem ba noppi dolli ci dara ne lii yàlla moo ko war te yàlla waxoo te yaa ko tey su indee melo boobu daf lay leeral yenn melo ñoo koy saxal ñooy dàq loolu ne lii mënta nekk ndax ab yonent du sañ du sañ moom du sañ yàlla ko waxal nangam ba noppi muy wax nangam ba noppi doll ci dara na lii yàllaa ko wax déedéet wala ab tabdiil wan muy soppi dara waaye da koo soppi ci ak njuumte yàlla na ko waxal nangam moom mu dem wax leneen waaye nag daa juum ndax loolu dana am ci ab yonent dana leeral yenn melo ñooy dàq loolu alkitmaanu amdan mooy nëbb dara te tey ko su fekkoon loolu daa nekk ci ab yonent dana la leeral yenn melo ñooy dàq loolu xamal na loolu mënta nekk ci ab yonent ab yonent yàlla suñu ko yónni na ko waxal nàngam mu ne damay wax nàngam ba noppi non loolu duma ko wax dama koy nëbb te maa ko tey mënta ne ziyaada saxwan dolli daal ci ak njuumte ndax loolu mën nekk ci ab yonent su fekkee loolu moom mën naa nekk ci ab yonent tamit daf lay leeral yenn melo ñooy dàq loolu al ndax ab yonent sañ naa wuuteeg ndigalu yàlla da leeral tamit lan mooy dàq yooyu kitmaanuhum saxwan seen nëbb dara si ak njuumte ndax loolu mën naa nekk tamit ci ab yonent nëbb dara te ba muy nëbb tayu ko waaye waaye dafa juum nëbb ndax loolu sañ naa nekk ci ab yonent yooyu yëpp nag incha allah bii di ñëw danañ ko leeral benn bu ci ne mu leeral la yenn melo ñooy dàq loolu saxal ni lii moom mënta nekk ci ab yonent ab yonent sañul nëbb dara te tey ko sañul nëbb dara eh, te tay ko sañul yokk dara te tey ko ab yonent mënul def dara di wattee dara ci ak njuumte ab yeneen mënta nëbb dara ci moo ko tey ab yonent mënta nëbb dara ci ak njuumte ab yonent mënta wuuteeg li nga xamante ne mooy ndigalu yàlla incha allah ñoo ngi nuyuwaat ñëpp di ziyaare ñëpp bu ko defee incha allah ñu taxaw lu fii rek tey jii ci kàttanu borom bi bii di ñëw incha allah ñu mën a dugg nag ci loolu nag gën koo mën a leeral ñu xam ne ñetti melokaan yooyu ñetti melo yooyu ñoo nekk ci yonent yi muy sidqun amaana tabliix waaye ñetti yi mënul nekk ci ñoom muy nëbb mënta nekk ci ñoom war mënta nekk ci ñoom wax loolu dëgg tamit mënta nekk ci ñoom incha allah ndax loolu mustaqil la daa jomm ci li nga xamante ne mooy yonent yi di ziyaare ñëpp mboolem ñoom topp émission bi ñu ngi nuyu baax di leen ziyaar la ñu seen wàccuwaay waaye di ziyaare bu baax a baax. sëriñ fàllu mu nekk ci région ba ak sëriñ Ndoye ñu leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu borom dafa leen tawfeex ak tey taysiir incha allah di jéggalu nag borom xam-xam yi nga xamante ne ñoo doon toog di ñu teewlu lépp lu ci juume ñun ñii la nga xam ne doomu aadama képp lañu mën nañoo juum ci wax ji wala déggin bi wala firi bi waaye lépp lu ci jubee nag ñu santeeka borom bi te xam ne suñu yéene rek mooy defar. ak rek dimbalante ci li nga xamante ne mooy téere sëriñ bi di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex defal leen ko bu baax a baax a baax incha allah dox daje ba beneen trente ci waxtu wi ci seen télévision Fatihul Bichri TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم